li ci yenn yi ci yenn yi El dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne nag jiite woon conseil bi di ñu xamal woon yéenekaay bi nañ ko fa daal di andi ki nga xam ne moo di Mimi waaw Mimi Cadence borom greffas yi yéenekaay bi xamal ne njiitu réew mi Macky Sall kay laata muy dem réewum France waaw gannaaw loolee daal am na ay décret yu bëri yoo xam ne daal moom njiitu réew mi daan na koy signé waaw te yooyee di laas di ñu xamal ne moom Aminata Tall mi nga xam ne kay moom la ñu jëlee foofee mu nekk di gee du ñu xamal ne Mimi Touré kay gannaaw xaar bu yàgg boo xam ne daal doon na ko xaar jamono ji nag ayam jot na laati ñu yéene kaay di yéene kaay ak des médias gi di ñu xamal ne kay gannaaw daal dogal gii nga xam ne njiitu réew mi jël na ko muy Macky Sall gannaaw daal joxal googee nga xam ne jël na ko moom Mimi Touré moomee nekkoon na koo xam ne daal yàgg naa liggéeyal ki nga xam ne nag moo di njiitu réew mi Macky Sall moom réew mi quotidien di ñu xamal ne kay mbir moomee daanaka bettul kenn ndax Mimi Touré yàgg naa jàppale ki nga xam ne nag moo di Macky Sall yéen kay jamono ji dafa mel ni daal dinay nopp daal di taxaw xam ne nag jëm na ci wàllu googee nga xam ne ñu ko dénk yéen kaay bi nga xam ne daal moom la ñu jële foofee yéen kaay bi kay yàgg naa am ay daal dafa nga xam ne njiitu réew mi ko doon jariñ bareetul loolee tax na ñu daal di koy jële foofee nga xam ne nag fa la nekk l'observateur du ñu xamal futtu kay waaw mer ba futtu la def ci seen doom ji nga xam ne daal loolu yi nga xam ne joxoon nañ ko ko ñu daal di koy nangu yéen bi dañu xamal ne ji ne nag jëm nga xam ne daal ñoo nekkee foofee bëri na ñoo xam ne la sàkk moo di Omar Sarr moomee mu daal leen di abal l'observateur xamal ne ak lu mel ni xew jamono ji ne am na lu des yéen bi di xamal ne am ndaje la doon amal waaye ndaje moomee ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko waaw moom Sonko Sonko bi kay fekkewul ci ndaje moomee nekkee ca biti réew yéenekaay bi dañu xamal ne kay jamono ji nag li fi xew kenn xamul doon waaw maanaam tali daal li muy ay bakkan mi ngi bëgg bëri yéenekaay bi di laas di ñu xamal ne kay jamono ji daanaka am na lu toll ci fukki nit ak ñaar yoo xam ne Sénégal jot nañoo ñàkk seen bakkan ci juróom ñaari fan am na lu toll ci juróom fukk ak ñeent yoo xam ne jamono ci ne kay mbir yi ñetti nit ñoo xam ne jot nañ caa ñàkk seen bakkan am na ci lu toll ci ñaar fukki nit ñoo xam ne itam am nañ ci ay gaañu-gaañu yu metti ñu daal di koy daaneel ak Dakar Times yéenekaay bi du xamal ne jamono ji kay ab rapport boo xam ne génne nañ ko ca France waaw rapport boobee nag la muy wax moo di waaw maanaam daal écran yi nga xam ne daal suñu xale yi dañu koy jëfandikoo moo xam tablette wala sax écran yi nga xam ne daal maanaam télé ak lépp luy xeetu écran na ci yoo xam ne ay jafe-jafe sax lay indil ñi ne daal ñoo rapport boobee kay dafay xam ne ne daanaka daal ay jafe-jafe yu bëri mën na ko andi ci xale yi nga xam ne daal dañuy doxool ak rawati nag xale yi yéeni bi dañu xamal ne mbir moomee nag nekk loo xam ne jamono ji daanaka laal na àdduna